ومسكني سليم من الفجار وامن على الآل بماء جاري واجعل mu مننا معجلة جالبة لمنن المؤجلة يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فرط من سواك comité initiative pour l'eau de Touba ñu gën ko xam si Maawu Rahmati ñu sos ko si atum 2006 ginnaaw ndigalu Serigne Saliou Mbacké mi nekkoon xalif général des Mourides sa booba jamono Maawu Rahmati gi di wéy liggéey bi ba mu tàbbi si loxow Serigne Moustapha Dieng mi nekk ca bobba ci ndigalu sëriñ Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides liggéey bi nag mu ànd si ak Serigne Abdou Khader Mbacké ibn Serigne Cheikh Assoufal fegoog Serigne Moustapha Mbacké ibn sëriñ Moussa Bassirou di ñaareelu toftal bi maawu rahmati ëmmam di njàppandal ndox mu sel si biir tuuba waaye nag yaatu ñëpp mën see jote ànd si ak bànqaasu nguur gi nga xamante ni mi ngi ci wàllu hydraulique si biir Touba Amati taxawaayam indi ndox mu sell ci Touba doon na lu mucc ayib ndax nag firnde am na ci daan nañu nemmeeku ni jafe ndox daan am waaye nag tamit bi mu ñëwee gis nañu ni mbir mi gën naa ñëw ndax sax daan nañ toog ay ayubis ndox du am askan wi daan dem di rootaani waane Maawu Rahmati mën nañu wax ni indi na ay saafara ci yooyee situation Maawu Rahmati ci mission bi nga xamante ni mi ngi koy amal bokk na si saa su paan amee ci forage yi nekk ci Touba li muy njëkku sàkku ci nguur gi mooy ñu wut pompe su ko defee ñoo yor liggéey bi ba lépp mën a yemb seeni waaye tamit yaatu na loolu si wàllu réseau hydraulique bu ndax ci mbooleem fu tuyau yu bënn nekk ñoom ñooy dem réparer ko su ko defee ndox du mën a yàqu waaye tamit askan wi dinañu mën a am ndox saa su nekk seeni ay équipe yendaluñu fanaanaluñu ñoo ngi si terrain bi di xool réseau bi di koy saytu saa su nekk tey ji bi nemmeekoo ni Touba am na ñaar fukk ak juróom-ñeent si ay forage ak tamit lu tolloog junni ak ñaari téeméeri kilomètre taxawaayu maaw raxmat ci si saytu bi ba lépp mën a jàppandi loolu doon lu mën a teg loxo si wàllu entretien bi maaw raxmat yi dina si ànd sax nag ak unité de maintenance hydraulique de Touba di kuréel gu fi toogal nguur gi di saytu wàllu forage yi waane Maaw Rahmati bàyyiwu leen dina gunge ba liggéey bi mën a antu sa nañ ko bëggee ba tey tamit Maaw Rahmati saa su nekk dinay wàcc si terrain bi dem di diisoog askan wi wax ak kilifa yi nekk si gox yi ngir nag ñuy mën a saytu branchement yi kepp ku bëgg def robinet sa kër nga mën si déggoo ak ñoom ñu mën la teg sa yoon su ko defee réseau bi kenn du ko mën a salfaañi ba ndox du am benn gàllankoor Maaw Rahmati dina jël si moo fi togal nguur gi si wàllu carburant sa sunu waree dem def intervention di leen di tamit yembal ay pièces de rechange ngir panne yu bette yi ñu nemmeeku tamit euh, maawu raxmati saa su courant coupé ba machine yëpp taxaw te sax mën naa indi ay gàllankoor si forage yi ba distribution bi du jaar yoon askan wi mën si am ay jafe-jafe ñoom ñooy yembal carburant bi jëm si groupe électrogène yi dawal forage yi ba tey am nañu beneen taxawaay bu am solo si dëkk bu sell bii di Touba nemmeeku nañu nii màggal Touba askan wi ñëw dina takku boole kook gox yi woon ndox si biir Touba takku nañ loolu tamit su ko defee maawu raxmati mooy indi solution si li mu gën a gaaw a gaaw yembal ay camion citerne tas ko si mbooleem gox périphérie yi ñu mën a nag jàppale population bi ñu am ndox mu set sel si jamonoy màggal Touba lii nag doon mission bu ñu yàgg di def te nag saa su nekk askan wi di yëg njàppandal bu ni mel jéego yu am solo yi nga xamante ni Maawu Rahmati mi ngi koy def ngir nag saafara ñàkkum ndox si Touba ak tamit yembal ndox mu sell mi ngi ci ànd ak ay partenaire am yi nga xamante ni saa su wootee nu ñëw ñu si mel ni El Serigne Gueye El Hadj Mandiaye Diongu Serigne Mboup CCBM Serigne Seck C3S Moustapha Sow opérateur économique ak daayira yi nekk ci diaspora bi nekkit ci biir réew mi ba tey tamit am na ay association yu leen di jàppale ñu mën see nemmeeku Touba sa kanam association ànd taxawu Madiana ak it kuréel gu nekk xayra di waa kër Serigne Modou Boussa Dieng ci njiitalu Serigne Djili Mbacke mi xalifaam taxawaay nag bi ñu am ci ginnaaw Maou Rahmati tax na kuréel gi mën a taxawal lu tolloo ñaari téeméer ak juróom fukki kilomètre yu yokku ci bi ak it ay forage forage yooyu nag ñu mën see lim bi nekk ndigal ci Nindi Daaru Rahman 2 ci Bokkatul Mubarak Daaru Salaam Darmo Daaru Marnaan Madiana bi nekk si université Cheikh Abdoulaye Laha Maawu Rahmati fas yéene lawal jéego yi loole waral mu gën a yaatal liggéey bi ba mu mën a nag jote si ñëpp ñëpp mën see def seen jaayante ubbi nanu ay compte si mbooleem banque yu mag yi nekk si réew mi ñu mën see nemmeeku CBAO Banque Atlantique Ecobank bisis ak SGBS Maawu Rahmati liggéey bi nag muy amal ñu ngi ko teg nag si anam yu leer te wóor bu dee lu aju si wàllu décaissement chèque buy mën di génn si banque yi dina am ay signature yu wuute ba tey maawu rahmati yemul foofu ginnaaw bi mu jotee ndigal ci sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir xalif général des Mourides ubbi na tamit beneen compte ci plateforme transfert d'argent yi lu ci mel ni Free bu ngeen bëggee tàbbal seen jaayante def seen contribution ci ni mu gën a gaaw a gaaw mën ngeen ko envoyé ci Free Money di dièse 150 étoile 4 étoile 6 étoile 4700 dièse dièse 150 étoile 4 étoile 6 étoile 4700 dièse maawu rahmati nanu ànd sakkanal ndox mi te def si suñu mën-mën. ana alladi la tuamilu abada ila siwaaka haahuna summa gada